ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat jàmm ci seen seen bi di Leader TV di wax ni bu leen fàtte abonné gannaaw loolu ñu ñëw ak ci information yi nga xam ne moo fi jot wàcc léegi gannaaw bi nga xamee ne ñoo ko doon xaar foofee FC Barcelone moom l'international brésilien bi ñu gën ko xam ci Rafael Diaz ñu naan kaa Rafinha gannaaw bi nga xamee ne benn contrat dox na ci diggante joueur bi ak FC Barcelone géej nga xam ne contrat bi mi Rafinha mii nag mi ngi xam lu si première kàddoom naan mi ngi gërëm président FC Barcelone bi mi ngi gërëm supporters yi mi ngi gërëm fans yi mi ngi gërëm ñëpp moomee di Rafinha ba tey mi ngi xam ne naan FC Barcelone gii bi ma nekkee xale laa ko bëggoon ba tey moom la Rafinha mi ngi xam le naan man FC Barcelone gii dama fi ñëw pour bind histoire boo xam ne dina romb li nga xam ne Ronaldinho bi ñëw na ko fi wala kooku le Neymar nekk foofee sa Paris gannaaw bi ñu présenté Rafinha l'international brésilien boobu nekk foofu léegi sa FC Barcelone jot nañu présenté kii di l'international français bi ñu gën ko xamee ci Ousmane Dembélé moomee di Ousmane Dembélé nag gannaaw bi nga xamee ne nangu na yokk contrat am foofu sa FC Barcelone ba 2024 bii ñu jëm détails yi nga xam ne moo nekk sa boobee contrat ak sumu xaalis boobu fesaluñu ko ñu leen di jaajëfal ba beneen ak yeneen i jàngat yeneeni i vidéo ngeen jëf